li fi jot a xew tey vraiment ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax a baax et ñu ngi joxoñ nag suñu baaraam responsable partie bi ci kaw parce que lu mel ni investiture bu doon respecté nañu nit ñi lu toll ni investiture dañu waroon yónnee ay ndaw ñu ñëw présider investiture yooyu mais du ñu bàyyi ñi nga xam ne ay ñoom ñoo fi nekkoon nekk bëgg nekkaat ñu ñëw di présider investiture yi ensuite aussi ñoom lañ koy jox pour ñu yóbbu ko au plus haut niveau loolu d'accord ñu ci parce que ku ndóobin rey sa maam boo gisee lu ñuul daw parce que ci élection locale yi dañu joxe woon fii suñuy dossier ñu rocci dossiers yi xotti ko sànni ko ci poubelle ba donc tey aussi bu dee ñoom la ñu joxaat suñuy dossier ñoom ñoo ko war a yóbbu ah ñu ngi wax responsable yi au plus haut niveau ñu ngi wax population de Tambacounda que déposé nañu suñu dossier de candidature pour la poste de députation du département de Tambacounda. waaw loolu nag malheureusement moom moo xew parce que ñoom ñoo ko def. bu dee par exemple am bu doon mandataire bi. maître Sidiki Kaba bi ñu wax moom mooy mandataire parti bi bu doon teew na. peut-être mën na jël dossier yi. bu doon aussi euh, yónnee nañu superviseur. bi fi daan ñëw wala beneen superviseur peut kooku mënoon na récupérer dossier yi mais loolu lépp dara amu ci dara amu ci pour man lii cinéma la caaxaan la li ñuy def def nañ ko ba pare mais nag ñu ngi leen di xaar ñu ngi xippi suñuy bët ñu ngi ubbi suñuy nopp di leen déglu